mais réseau dañ ko laal looloo tax mu songuñu parce que affaire bi waratul sedd ndax guerre bi tàmbali na. attaqué wu inspecteur bi bi naa la nee na caga te doomu caga caga rek lay doon. damaa bëgg nga tontu franchement. su jëkkër dafa mel ni sax moom du góor bu mun jabar bu ko jël day dangaa nekk ci ay loxo waa moom xanaa doomu jullit soxna si xanaa doo doomu jullit man kenn duma imposer dara